asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokku julliti mbokku taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax Thierno Moule Sow la xalif général des jinne Thierno Moule Sow Soundiata Keita le roi médecine traditionnel du monde le king of the king tey nag ñoo ngi dikkaat ci yéen émission bi nga xamante ne mooy émission bu mag boobu noonu nga xamante ne macha allah mooy am TMS TV chaque vendredi macha allah à vingt et une heures macha allah tey nag dama ñëwaat ci beneen façon. ci émission bi bi mooy quatrième émission bi nga xamante ne ñoo ngi koy def macha allah tey nag dañuy ñëw euh, di wax macha allah jinne ruuxaan xuddaam macha allah raab macha allah jaabul maanaam jinne shaatiin tey loolu la ñu fas yéene yaatal nit ñi won nit ñi maanaam gën a jinj nit ñi parce que en général nit ñi dañuy jaawale jinne ak rab waaw rab nag mooy euh, defe naa ne ñëpp xam nañ ne suñu mbokk lébu yi macha allah dañuy am ay tuur macha allah suñu mbokk njaago yi aussi da ngay gis dañuy am ay tuur suñu mbokk séeréer yi maanaam ñu bari yi nga xamante ne ci suñu mbokk yi nekk fii ci Sénégal da ngay gis ne ñii dañuy am ay tuur am ay famille am ay cosaan lu si ëpp day nekk ay ay zaaru euh, tuur li ñuy wax tuur. maanaam euh, kilifa kër gi macha allah moom moo koy faral di yor maanaam maam yi ñoo ko fi bàyyi woon boo gisee fii Sénégal ñun réalité macha allah gis ngeen ñu bari dañuy def ay ndëpp lébu yi dañuy def ay ndëpp maanaam di def ay ay tour macha allah su ko defee da ngay gis ndëpp yi euh, nit ki day daanu maanaam jinne bi wax ne lii laa bëgg. su ko defee ñoom ñu ñu defal lu jinne bi bëgg yooyu yëpp dinañ ci ñëw di ci waxtaane macha allah di gën a yee nit ñi rab ak jinne waaw rab nag macha allah comme ni ma ko waxee rab day day yor ay melukaan yi nga xamante ne macha allah dana nekk day melukaanu animal rab day yor melukaanu animal maanaam dina nekk jasit dina nekk gaynde dina nekk bukki dina nekk golo dina nekk jaan dina nekk bar en général rab yi dañuy yor façon yi mel noonu même jinne sax am na jinne yi nga xamante ne aussi dañu yor melukaan yi mel noonu mais boo xoolee ne euh, li nga xamante ne dañ koo tuubal moom la ñu woowee jinne jinne mooy dañoo tuubal rab ñu mu mujj nekk jinne wala ñu tuubal jaabul wala ñu tuubal shayaatin shaytaane mooy euh, shayaatin yi nga xamante ne dañuy dugg di yàqal nit ñi mooy euh, famille iblis njabootu iblis ñi xamante ne dañuy dugg nit ñi ko di ko géntaloo muy sëy maanaam di ko njaalaloo di ko tere am doom di ko yàqal lu mu dugg mu yàq ko maanaam ñooñu la ñuy woowee rab léegi nag ñooñu noonu bu ñu leen tuubalee moom mooy jinne mooy ñi ngeen di gis ñi may jàpp ñu bari di leen tuubal maanaam suñu leen tuubalee dañuy nekk jinne maanaam dañuy nekk ay jinne yi nga xamante ne ay musulman lañuy maanaam lañu leen di woowee maanaam bu ñu nee jinne rek mooy mooy ki nga xamante ne mooy mooy rab bi tuubal nañ ko dugg na ci diine lislaam léegi dañ koy woowee jinne macha allah wala mooy shayatin bi nga xamante ne njabootu iblis la tuubal nañ ko léegi dugg na ci diine lislaam moom la ñu woowee jinne am na nag ruuxaan am na ruuxaan ndax nag macha allah ruuxaan aussi famille day am ruuxaan maanaam day am famille bi nga xamante ne ruuxaan yi euh, famille bi day am ruuxaan ruuxaan bi nag moom mooy garder famille bi moom mooy sauver famille bi macha allah fu famille bi nekk ruuxaan bi day ñëw loolu nag day fekk say maama maam macha allah dañu amoon ay ay ruuxaan yor ay rab macha allah su ko defee loolu day ànd ak famille bi day jàppale famille bi parfois da nga gis ne ay rab yi nga xamante ne dañuy ànd ak famille waaye dañuy faral di yàqal famille bi parce que famille bi day soxla ay ñaan maanaam soxla ay sarax. su ko defee dañuy won famille bi ay sarax bu ñu wonee famille bi ay sarax ñenn ci famille bi duñ ko mën a xam ñu bañ a génne su ko su ko defee rab bi day mer daal di feebar lool ñenn ci famille bi da ngay gis ñenn dañuy nekk bitim réew feebar façon feebar bu ne ñu ne foog nga dem tuuru foog nga dem tuuru léegi boo tuuruwul doo mën a wér bu ko defee nit ki day day jóge ba bitim réew jóge France wala Amérique partout dans la moon ñëw ba seen xàmb yi daa di sangu tuuru léegi nag man Thierno Moule Sow euh, invité naa yooyu yëpp nag parce que euh, même bu nit ki amee rab bi nga xamante ne rab bi daf koy sonal euh, maanaam foog sax foog nga neexal ko sax at foog nga tuuru man mun naa dindi loolu nga xamante ne rab bi dootoo ko neexalati dootoo ko tuural te dalay may jàmm parce que bu nekkee rab bi nga xamante ne maanaam danga koy neexal di ko defal lu neex rek soo ko defal lu neex muy mu toroxal la wala mu yàqal la kon kooku jarul nekkal loolu tamit ñun dañuy fexe rab boobu noonu ñu daal di koy tuubal mu nekk jinne mu daal di mën a bàyyi la nga mën a am jàmm su ko defee chaque at doo jóge Amérique wala doo jóge France di ñëw di tuuru parce que ñu bëri chaque at dañuy tuuru wala ñi wala ñu yónnee ñu daal di tuuru wala même fii ci Sénégal da nga gis yenn famille yi chaque weer wala chaque ñaari weer foog ñu dem ci seen xàmb yi ñu daal di def ay sarax wala ñu daal di tuuru suñu ko deful du ñu am jàmm te xam nga nag loolu mënul continuer li jigoon mag yi njëkk ya loolu jiguñu léegi léegi nag avec mu Moule Sow la xalif général des jinne loolu yëpp jeex na ndax man rab yooyu noonu dama leen di dama leen di tuubal dugal leen ci diine lislaam su ko defee ñu bàyyi famille bi ci jàmm euh, famille bi mën a am jàmm euh, rab bi aussi bàyyi famille bi carrément dootul yàqalate famille bi euh, famille bi mën a am jàmm rab boobu ma daal di koy tuubal mujj ko soppi mu nekk jinne macha allah kon jinne ak loolu mooy seen différence jinne ak rab dañoo bokk ndey waaye ñu baay maanaam benn xeet la benn xeet la jinne ak rab bokk nañu ndey waaye bokkuñu baay waaye nag benn xeet bi la comme nga ne nit nit ku ñuul nit ku weex nit ku maanaam nit ku ñuul nit ku weex comme nga ne nit maanaam mun nga ne pël bi mun nga ne njaago bi bambara bi maanaam mun nga ne wolof bi mun nga ne français bi mun nga ne Allemagne bi maanaam rab ak jinne dañoo bokk ndey waaye bokkuñu baay boo xoolee nag jinne mooy li ñu tuubal wala li tuub nekk ci lislaam kooku macha allah léegi jinne la day jaamu yàlla day jàng alxuraan macha allah di wàcce ay kaamil di def lu baax mooy ñi may jàpp ni jinne yi may jàpp gis ngeen leen dama leen di jàpp tuubal leen dugal leen ci diine lislaam macha allah su ko defee euh, dañuy may liggéeyal ci doomu aadama yi tey gis ngeen euh, am na benn soxna bi nga xamante ne ñëw na fi maa ko ñaanaloon ba yàlla def ko mu am doom moom dafa amoon ay rab yi bon yi ko daan sonal rab yi di ko yàqal heure bu ëmbee mu yàqu moom euh, taawam taawam am na 10 ans boobu ba tey mënatul am doom rab yi rab yi bon yi ñoo ko téye gis ngeen borom këram sax ba ci biir ëmb bi rab yi dem nañ bëgg a rey borom këram def ko accident ba mu def soog ba pour yàq loxo bi kon xam nga ne rab dafa bon mais nag yàlla def na ne rab yooyu noonu mujj nañ leen récupérer tuubal leen ñu maanaam ñu nekk suñu taalibe du ñëpp nag ñooy daanu boo xoolee dina am ñi nga xamante ne dañuy daanu. di daanu seen rab yi di wax wala seen jinne yi di wax ñenn ñi tamit du ñu daanu waaye dañuy fees tell ak ay rab waaye ñun suñu garab bu ñu ko joxee nit ki di jin moom fu mu mën a ne sama jinne yi dañuy dem mat jinne bi indi indi ko fii mu daal di tuub nekk suñu taalibe boo gisee jamono ji ak coronavirus bi nii nga xamante ne liggéeyu ma waaye maa ngi liggéey en distance maa ngi jàppale ñi nga xamante ne dañoo sori ndax tey munoo yónnee garab munoo yónnee dara euh, nag confirmant bi moo tax waaye damay toog sama biir néeg di yónnee li may yónnee mooy jinne yi ñu dem di faj nit ñi di jàppale nit ñi seen i problème kon nag macha allah jinne boo ko yore da nga koy da koy da nga koy liggéeyloo boo xoolee fii kilifa diine yi fi nekkoon yëpp macha allah dañoo amoon ay taalibe jinne dañu yoroon ay taalibe jinne kilifa yi diine yi fi nekkoon yëpp ñi ci bëri dañoo amoon ay ay taalibe parce que nag euh, euh, ñi maanaam lenn li buñ la ko buggee def say taalibe jinne ñooy ñëw taxaw ñoo ñoo la ci génne parce que nag suñu borom daf ñoo sàkk waaye jinne moo gën a jege nit que jinne moo gën a jege nit ko ruuxaan am na tamit li ñuy wax ruuxaan roxaan ak ruuxaan bokkul ruuxaan loolu macha allah loolu du nekk ci kaw loolu day nekk genn wàll malayka day nekk genn wàll malayka genn wàll jinne loolu la ñuy wax ruuxaan loolu nag ci ci kaw asamaan la dëkk te loolu nag macha allah ñun am nañ ay ruuxaan ñun avant ñoo am jinne yàlla boole woon nañu ak ruuxaan macha allah léegi nag yooyu kilifa bu àndeek yooyu am na yu bëri yi nga xamante ne su la buggee dal loolu mooy ñëw nekk baaraas tey buñ la gasaloon kàmb ba nar la préparer loolu mooy ñëw effacer loolu bu buñ la naroon def yi bon loolu moo ñëw taxaw moo tax suñu kilifa yu baax yi fi nekkoon macha allah yàlla dénkoon na leen ñu am ay taalibe jinne ñii ñu am ay ruuxaan aussi macha allah comme ni ma ko yàlla dénkee kon di sant yàlla di ñaanal suñu borom bu baax a baax ndax man li ma yor suñu borom moom ma ko jox ndax tey gis nga ne ku bëtam xonk ku bëtam xonk ndeysaan day daw ñëw ci Thierno Moule ndax yaakaar bu mu am ci Thierno Moule Sow ndax nag yaakaar dafa foor te gis nga ne li ci li ci jinne yàlla may nañu ci maanaam fajum jinne fajum rab dëmm jinne yàlla jox nañu ci xam-xam jox nañu ci baatin yi nga xamante ne gis ngeen ne jinne yi ma fi jàpp ci àdduna bi si ngeen jinne yi ma fi jàpp ay jinne yi mag lañu kon yàlla na yàlla def jàmm mbirum jinne nag macha allah euh, jinne nekkul ku ne moo ko mun a maîtriser te jinne nekkul ku ne moo ko mën a gis jinne nit mënul maîtriser jinne mën nga dëkk ak nit ku yor jinne cent ans quatre dimanche doo gis jinne maanaam su buggee nga gis nag da ngay gis yàlla def na loolu ñu nag alhamdulilah rabbil alamin jinne yi ñu yor yi bonuñu dañuy jàppale nit ñi dañuy dimbali nit ñi ku ku sonn ñu jàppale la ku am jafe-jafe ñu jàppale la maanaam ñu jinne def ko arme di xeex wala def ko arm di gaañ dañu ko def ngir jàppale askan bi ndax nag yàlla def ñoo jox mbootu jinne xam-xamu jinne parce que actuellement nii liggéeyuma mais jinne yu bëri jamono ji maa ngi leen di capturer ñoo ngi ñëw direct di jëflante ak man jinne yu bari ñoo ngi ñëw ma leen di tuubal kon nag euh, ruuxaan macha allahu ruuxaan jinne ak rab ak jaabul xam ngeen jaabul moom jinne chaatin la ñoom dañuy njaaloo ñoom du ñu julli du ñu woor gëmuñu yàlla bëgguñu ko leen tuddal yàlla bëgguñu ko leen tuddal yonente bi salaa salaam man nag ñooñu laay jàpp daal di leen tuubal dugal leen ci lislaam ñu daal di may liggéeyal ñu ànd jaamu suñu borom kon nag rab aussi macha allah te boo xoolee rab yi tamit day am ñi nga xamante ne aussi dañuy am juróom-ñaari bopp day am ñi nga xamante ne dañuy am fukki bopp ak ñaar ñii dañu am fukki bopp ak juróom-ñaar léegi nag loolu boo ko maîtriser wul soo gisee loolu da ngay dof loolu neexut a gis te suñu ñoom Iblis ñaanoon na suñu borom maa ngi lay ñaan yow suñu borom ñaan naa doomu aadama yi maanaam buñ ma gis waaye ñun nañ leen di gis loolu moo waral ñenn ci doomu aadama yi ñooy mën a gis rab ñooy mën a gis jinne waaye du ñëpp ñoo koy mën a gis ndax yow mën nga xëy jënd terrain jënd kër tabax ko fekk fa jinne dëkk ak moom cent ans quart te doo ko gis te moom dalay gis kon yàlla may na leen loolu. waaye nag am na ñu yàlla may ñu mel ni Thierno Moule Sow mooy mën a jàkkaarlook rab di mën a jàkkaarloo ak ay jinne di waxtaan ak ñoom di leen tuubal di leen defal ci kàttanu suñu borom fa am question beneen wala. Euh, Thierno Moule ñu dégg tey ba ci question yi si sénégalais yi xam euh, ndax jinne euh, rawxaan mën nañ wax ni ni ci guddi waaw tey. ñoom nan la ñuy manifester ci nit pour nga mën a xam ne ni kii ci ko dugg wala nit ku dee ko dugg ban mandarga lay doon day feeñ ci moom wala ci comportement yi nga leen di ràññee. waaw macha allah jinne bu duggee nit day am manifeste maanaam day manifesté wu da ngay gis ne ne kii lu mu daawul def da koy def benn mun na nekk di mer di bëgg a wéet di bëgg a néeg kese di bëgg lëndëm te bu wéetee nga dégg ay wax fekk ne ay jinne lay waxal. wala nga gis ci soppeeku mu soppeeku carrément ki nga daan gis wala mu xool la ay bët yu sori jàkkaarloo yow ki nga xamante ne daawuloon siggi xool la léegi day jàkkaarloo yow xool la ay bët bët yi wow koŋ nga xam ne ni kii am na lu nekk ci moom benn ci langage nit ki mën na naqari deret mu mën na tàng mun na ko perturber loo ba du nekk ak nit ñi day bëgg di wéet wala lu mu am mu yàqu lu mu yaakaar mu tas su nekkee xale bu góor mën nga am rab bu jigéen bu la bëgg topp la boo tëddee guddi ngay gént di sëy ak moom sa xol di tàng soo yeewoo gis sa tubay mu tooy fekk ne biig da ngaa fanaanoo sëy ak rab bi loolu day am bu nekkee jigéen tamit mën na nekk loolu mën na la gis bëgg la tere la am borom kër nekk sa far di sëy ak yow nga xëy yëg na sa kanam tooy na mu tere la am borom kër góor gu ñëw wax ak yow ba nga am yaakaar mu tas wala boo demee ba am jëkkër doom boo am mu yàq ko ëmb boo am mu yàq ko wala du la bàyyi nga sëy danga gis ne fii 90 pour cent jigéen ñu bëri dañu xees maanaam xees ñuul ah, jigéen ñu bëri ñu rafet macha allah du ñu nekk ci sëy boo xoolee 90 pour cent jigéen ñi gën a rafet yi jigéen ñu gën a rafet du ñu toog ci sëy parce que li waral loolu dañoo yor ay jinne léegi nag euh, ma waral góor gu ñu nekkal du ñu mën a yàggak yow mu kii mënuma ko comprendre kii lu muy def neexuma dafa may commandé wala nangam fekk lu loolu moom dafa yor jinne dafa yor rab rabam bi du bëgg mu nekk ak kenn maanaam rabam bi mooy tax nit ki soof ko mooy tax jëkkër ji soof ko mooy tax bu waxee wax bi mu soof ko mooy tax bu gisee jëkkër ji xol bi tàng rab bi mooy def loolu jigéen ñu bëri ñi nga xamante ne dañoo rafet macha allah boo leen gisee am nañ taar waaye duñu toog ci sëy dañuy lim sëy da gis ne tamit artistes yi bëri tamit duñu toog ci sëy artistes yu bëri parce que ñii dañuy am faru rab ñii dañuy am coro rab boo xoolee artistes yi surtout ci artistes yi ñu leen gën a fees ci rab ci adduna amul artistes yi ñoo gën a bëri ay rab gën a bëri ay jinne boo xoolee artistes yi dëgg ñu bëri duñu toog ci sëy waaw quatre pour cent yi du ñu sëy du ñu toog ci sëy wala sëy bu ñu am du yàgg du ñoom li ñu àndal la dañu am rab seen rab bi fiiree na leen parce que fu ne la ñuy taxaw ci mbooloo fu ne la ñuy taxaw rab dugg leen soit mun nañ fekk ne amoon nañ rab ñu taxaw ci pop ci popularité rab dugg leen bu ko defee rab bi gis leen bëgg leen macha allah bu ko defee du ñu mën a sëy kenn artistes yu bëri bu ñu la nee euh, amoon na amoon na jëkkër waaye tas na sa jëkkër la def man de defuma dara ku baax la kon nag rab dafa garaaw nañu jóg aar suñu bopp fagaru moo gën faju macha allah di sant yàlla bu baax a baax. Euh, question euh, ci ni aaroo ba ci jinne yi sew sewaan yi nga xamante ni moo leen di gàllankoor waaw euh, macha allah di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi euh, aar aar sa bopp nag moom dafa bëri façon lu lay aar ndax am na jinne yi nga xamante ne macha allah mën nga muslu nañu gën a nañu gën a sellal di setal di aaru sellal setal di ut ñaan ndax nag fii àdduna la ku takkul dañ lay takk yóbbu ci armeer ya ku sangul dañ lay sang ku sóoruwul dañ lay suuli na nit ñi jóg ci seen bopp bul def kenn waaye na nga aar sa bopp boo aar sa bopp nag ci jaamu yàlla la bokk nga aar sa bopp ba nga xamante ne <laughs> ku la song daj daj dëj ku la song du daj waaye nag bu nekkee sa yaram bi dafa nooy ba ku lu la laal rek xosi la loolu tamit musiba la aar nag nanga dem ci ko am xam-xam ku mel ni Thierno Moule Sow nga ñëw mu defal la fossé blindé maanaam force blindé blindé ñëpp xam nañ ko tubaab bi créé nañ li nga xamante ne buñ ko blindé moom boo jëlee bal pistolet dóor du dugg loolu la ñuy wax force blindé man nag am na blindé force bi nga xamante ne su nit ki waaxoo ba ñëw dañu lay blindé yow ak sa njaboot blindé la yow ak sa famille fi ngay liggéey ñu belende ko aar la musal la ba dara du la munal dara du dëmm du jinne du rab du seytaane du cat du làmmiñ di doo ragal lépp li nga xamante ne lu nekk ci kaw suuf dara du mën ci yow lu dul suñu borom kenn du la mënal dara loolu nag la ñuy wax foose blindé loolu laay mën a wax nit ñi ñu aaru macha allah parce que aar nag ñëpp dañuy wax aaru waaye am na ñoo xamante ne macha allah bu ñu la defaree aar du tee feebar dal la wala du tee dara dal waaye nag foose blindé moom boo ko amee moom mooy aaru nga macha allah da ngay mucc ci lépp kon di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam